mënuñu ko waaye sa jàkkaarloog ñoom képp soo waxul woon sax njëriñ la ci ñoom billahi lisi laa ilaha illa huwa gin naa ko ci Seexuna Tiijaan yi mi nga xam ni alxaaji Abdul Asiis Si moo waaye sëriñ allahu akbar fasante na maag yow kóllëre mënuma ko fecc fekk may dugg ci biir suuf su ma duggee ci biir suuf it du ko fecc fexeel ba teg ma ci sa loxol maam sa say Sayyiduna Muhammad man wóor na ma ni jëfuma lu wóor bu ma nañ waaye wóor na ma ni bëgg naa nit yàlla yi toog naa ci pom bi fii ci alxaaji Abdul Aziz ma ne ko ba ma juddoo ba léegi mësumaa jox loxo sama sama loxo nit rocc sama loxo ci sama loxo am na ma ko jàppal ci sama xol mësula am Serigne Moustapha jëlee na ma fii yóbbu ma Ziguinchor ma def fa juróom-ñaari at di liggéey ci daayiratul Moustarchidine di fa samp ay section la ko tàmbalee foofu ba kere ngay dem Cap di dem ba kere ngay dem ba euh, Kolda àll boobu yëpp ay nit di dagg di tuub di dugg ci diine l'islam keroog bi nga xamee ni Serigne Abdou ñëw na jóge naa jaar si fa ñëw kër Alaaji Bëjëy ñu taxawal daayira bi mag ñi tas ko ñu taxawal ko ñu tas ko mu ñëw fa ci kër Alaaji Bëjëy ñu ngi tëdd ci kaw lal bi ma toog sëñ Samba Ndiaye ngi toog Alaaji ngi toog maa ngi toog ak oustaz Babacar Ndiaye ma ni ko si mu ne maa ma ni ko daayira bi taxawal nañ ko fii de ñetti yoon bu ci nekk mag ñi ko tas mu mu fekk mi ngi tëdd mu ne ñoo tëdd jóg ni ma yan mag ma ne ko benn ci sëriñ Samba Ndiaye mi mu ni ma yow kat jël nga ci sa turandoo jikko kat dëgg gi yaa koy wax ci kanam mag ñi ma ne ko waaw mu ne ma ko am mu ne ma ma ne ma mu ne ak kan ma ne ko Alaaji mii moo koy dimbali ci wàllu finance mu ni doxal leen seen daayira tur kiram leen bàyyi gone yi doxal seen daayiratul mustarsidin génn leen ci yëfi gone yi ba ñu ba ca ba ci sa sëñ Samba Ndiaye ànd ak fekk ma xamaa ni ma yow def nga lu rëy ma def ma li nga wax ci kanam sëñ bi ma ne ko du lu dëgg mu ne ma ma ne ko kuy déggee nopp yàlla soo waxee ci moom kàddu gu dëgg moo la koy jëkk xam ma ne ko su ñu woon dëgg sëñam bi ñu ne du dëgg waaye mënu leen koo weddi ndax yéen a ko def kon sëriif yal na yàlla sàmm la li ngay liggéey ci tariixa bi di ko liggéey ci diini ji di ko liggéey ci nit ñi xam nga nit ñi dañoo gàtt xel ndax dañoo yaakaar ni nit ki tariixa mooy ëmb nit mais tariixa bi nga bi nga bi la yàlla jox lim lay jox ba nga tariixa bi ñëwul ba nga tariixa bi ñëwul de bala yàlla boole rasulullahi boole nag seexuna tijaan yi nga war a jaari si ñoom ñëw ci jamono liggéeyal yàlla ci biir jaamam yi booba tarixa bi ñëwul ay dara yàlla na nga gudd fan ku ndax xaar yàlla na xaddi te kat dama lay wax lenn gis nga réseaux sociaux yii nit ñi di wax di lu nekk ñu di ko ci jëf ak di ko wax nit yàlla yi seen bopp seen bopp lañ koy def Seydil Hadji Malick nee na deru nit yàlla tooxe la ku ca mat di nga boo nga dee dañoo toog ci benn kër am ko am benn kàddu bu mu wax Alaaji mu Aziz ma ni bërit jóg benn booy boo xam ne moo gën a nekk xale ci noonu ni waa ji di nga dee ren sa kër tas te di nga dem sa war billahi la si laa ilaha illaa huwa waa jooju muy dee làmmiñam daa mel ni këñ di dagg di rot ba làmmiñ jeex takk mu door a faatu laa leen wax loo dee leen wax jaami ñu leen di déglu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sërif sërif denk naa la sama bopp sërif denk naa la sama bopp man de si moom may salaatul fatih moo ma may ca pomba dama daa wax gaa yi ni leen ñaar damay defee ni nit du ko def ñu ne amal leen sol lu tilim ak sol dàll wu tilim ak ñàkk yor xaalis waaye mag ñi nag léeg-léeg ñu yar nit léeg-léeg nga bëgg téppati ku ñu yar la man ñu ñu tuñ laa bokk waaye nag caabi yi yaakaar naa dinaa ko gis sëriñ sëriñ bi damaa bëgg nga ñaan ko